asalaamaaleykum sama mbokki Baye Fall yi maa ngi leen di nuyu lu bari tëj leen waaw dafa am ku léegi ni dafa am ku ni sëñ Tuubaa mos a digal kenn ne ko mu indi xari baski ma ne ko waaw loolu kay mën naa nekk waaye kii wax loolu de bu sa fekkee mbàkke sant jàpp naa ne soo ko woowee mbàkke wuyo te Serigne Touba musa bind fenn mbaa mu digal kenn ku ñëw na nga wuyoo Mbàkke loolu nag su ma ko waxee jàngat la man nga cee tàmbali xool yeneen yi mel ni moom te bari lool ci yoonu murit nga xool ne ñi ngi koy def doon ko def ci kanamu Serigne Touba te waxutoon nañ ko def waaye moog yoon wi ànd ba tey bi ci des tabaski ci Seydina Ibrahima. la bàyyi ko te ba mu rendi Ismaahila jàppul woon ni am xarla lay rendi moom pas-pasu rendi nit la amoon waaye ba mu rendee ba noppi dafa gestu ndegete yoo wa fadaynaahu bi sibhin azim xool ndeke am xar la rendi ki taxoon muy rendi Ismaahila nag mooy sunu borom tabaraka wa la waaye sunu boroom moo ko remplacé am xar ngir jaam bu doon jëfe ndigalam kon day mel ni kon rendi woon xar ak rendi nit benn la ci moom ndax lépp ci sunu borom la jëm kon ki wax ni joxe tabaski du diine ankay diine la moom ak déggam diine moo àggul foofu ndax sunu boroom moo wax ci alxuraan ni lay yanaala llaaha luxuumuhaa wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa sunu borom soxlawul yàpp wi soxlawul deret ji waaye taqwa gi la soxla loolu moo tax Cheikh Ibra Fall fopp ko jox sunu boroom ndax Baye Fall yi dàqi xarit Tabaski di ko joxe ko Serigne Touba moom sëriñ Touba jëralu ko bu amee benn jox ko Serigne Touba waaye jaral na ko waa kër Cheikh Ibra kon rend gi ak dàq gi joxe ak rey gi nit ak lu ci ne bu suñu borom taxee suñu borom lay fay kon diine wax na loolu ak déggam diine kon moo àggul foofu bi ci des Cheikh Ibra Fall la ci am ndax Cheikh Ibra moo bind ab leetar jox ko sëriñ Lamine Diop njaxeer ni ko demal ci Serigne Touba nga jox ko leetar bi ni ko nag naa la wax li ma bind ba soo demee ci Serigne Touba su loo ko laajee nga man ni ko lii lañ ci def ndax Serigne Touba soo ko jox joxee ab leetar danaan la ndax xam nga liñ ci def ni ko dama caa bind nii ndax man na maa tabaski benn ni ko waaju baax joo xam ne ab taalibeem dafa faatu ba mu yàgg ñu denc ko ba mu yàgg ñu sulli ko mu mel na melaatoon ni ko ndax sama doom ju jigéen mën naa koo may jullit bu góor bi mu ñëwee nam nam ko waxee woon la ko Sëriñ Tuubaa waxee ndax xam nga liñ ci def ci lettre bi mu ne ko waaw ginnaaw bi mu ko jàngee mu ne ko dafa wax ndax doom ndax mën naa tabaski mu ne ko waaw mu ne ko nee ko lu fa nekk ci xar na ko daa ko yót ma su jógee ci jullikaay bi lu ma fa fekk rendi mu ne ko waaju baax ju ab taalibeem faatu ñu denc ko ba mu yàgg ñu sulli ko mel na meloon mu ne waaw mu ne ko ne ko waaju baax ju bëgg ju waaju baax ju bëgg àddina mooy def loolu bi ci des ndax doom ju jigéen mën na ko may jurit bu góor nee ko na ko def tey te jox ko ko tey kon ñun bu dara dox suñu diggante moom la Sëriñ Tuubaa jëralul xëy na mu jël na xaram jox ko Sëriñ Tuubaa waaye ñun jaral na ko te loolu taxul teewul ñu tabaski lim boo dégg ñu joxe ko ngir yàlla jëmmi Sëriñ Tuubaa jàppal ni ñi ko joxe dinañu am lu ko ëpp ba tax ba ba rendi ko seeni kër kon li tax ñu koy def ngir yàlla moom kay ñi ngi koy jox kiñ koy jox bu fekkoon day wax kiñ koy jox la war a wax ba xam nu mu koy def ba xam dana ko rendi wala da koy joxe waaye ñun ku am kudd dool ak waaw sëñ Mor Yowinta Fall daa wax naan kuy jëfe ndigal doo juum ka lay digal nag mën naa juum waaye buñ la laajee tax nga def nangam nga dañ nangam ma ko nangam nangam la ma ko digal kon Cheikh Ibra Fall li mu jëf ci ndigal la ko def ak waa waa këram ci des mooy ñi nga xam ni ay imaam lañu wala ay ustaas de alquran dafa wax ni yaa ayyuhal lazina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu ab kàccoor sax bu dikkee ci yow andi la xibaar demal nga gëstu ji ba xam wér na wala wéru kon moo xam da nekk ci yoonu Serigne Touba wala nga nekk ci beneen yoonu bu doon boo nekk ci yoonu Serigne Touba bu fekkee ci nga nekk di ko dund demal nga gëstu ji mag ñi toppoon Serigne tubaa demal seeni kër nga gëstu ku ci ne sa maam lan moo ko boloon ak Serigne Touba. su la ko waxee nga jàpp ko dolli ko ci sax xam-xam ndax loolu boobaa lu wér lay doon ndax bukkut ak li nga tiim ci téere jàng ko xamu ba xam dëgg la wala dëgg te lu ci nekk am na ay du dëkk yeneen bi ci des mooy sëriñ mu jow paxa li ma wax nii boo demoon kër sëriñ na Diaw boo laa laajee dina la ko wax sëriñ Touba mas naa toog ak sëriñ mu jow paxa di ko jox ay téere di ko jox ay téere ba yàgg sëñ Tuubaa ni ko li ma jox loo ci gis wala loo ci xam mu ni ko danga am ñaari jaam yoo xam ne benn bi danga nga koo tënk benn bi nga booyal ko te ñaari maa ngi ci jaaxle lool mu ne ko tey naa la naa waxtaane yow ci mbirum Ibra Faal ni ko Cheikh Ibrahima Fall bi sëriñ sëriñ ni ko bi ma laxasoo ci tool rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bii mooy lislaam di ko liggéeyal Cheikh Rafaal dafa laxasaayu ci sama tool di ma liggéeyal nee na ma boole liggéey guddeeg bëccëg Ibra Faal boole liggéey guddeeg bëccëg ba benn bi Sëriñ Tuubaa woo ko ne ko Ibra Faal bokkoo ak man bokkuma ak yow bàyyi liggéeyu guddi bi te yem ci bëj liggéeyu bëccëg bi sëriñ Cheikh Ibra Faal ne ko sëñ Bàmba li fekk yaa ngi liggéey guddi maa ngi liggéey guddi li fekk yaa ngi liggéey guddeeg bëccëg ma liggéey guddeeg bëccëg sëriñ Tuubaa nee na bawuma loola ba ni rëkk ci sama borom Ibra Faal bawul loola ba ni rëkk ci man sunu borom ne ko kii nga àndal kan la sëñ Bàmba ne ko kii mooy Ibra Faal te xam nga sunu borom xam na loolu ndax sunu borom ba mu naan yonent yàlla Moussa wa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa xamoon na booba lu Moussa yor. waaye teewul mu ne ko kii nga àndal kan la mu ne ko ki Ibra Faal mu ne ko nee ko na dellu fa mu jóge woon na dem ci mafruut ak masnuun ak mubaax moo ñu farataal ak yi ñu sunnaal yi ñu yi ñu sëñ Bàmba geesu ko ne ko sa borom nee na nga dem ci mafruut ak masnuun ak mubaax Seex Faal xamal ne ko li ma jàppoon ba ak si du ko bàyyi mu ne ko Ibra Fall nee lim jàppoon bi ak fii du ko bàyyi damay wax ne boo demee laaj ko sëñ Thierno Diop baax dana ko nett de xëy na man laa nett li sax lu gën a gudd lii ma lay wax te gën a leer waaye sunu borom ni ko sëñ Bamba loo ci xam loo xam ci moom sëñ Bamba ne sunu borom laa hawla wala quwwata illa billah sunu borom ne ko nee ko ni sëñ Bamba. bàyyi ko fi muy daayu lislaam bàyyi fi Ibra Faal muy daayu lislaam boo liggéey lu mu taal ma fay ko kon ñunu Baay Faal yi nañ gën a fetli suñu laxasaay te gën a góor góorlu te xam ni li ñu jàpp lu wér la suñu tabaski yi su dee men nañ ko jox Sëriñ Tuubaa toog loolu rek laa bëggoon a wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu nañ ko def asalaamaaleykum wa rahmatullah